Euh, daf ñu ci interpeller bu baax a baax daf ñu ci yee daf ñu ci soññ bu baax a baax ndax njub ak te ci la ñuy tabax société mooy indi dal mooy mooy indi stabilité bu baax di ko gërëm di ko sant bu baax a baax waaye ma nuyu umma bi yëpp euh, bi ci réew mi ak bitim réew fu ñu mënti nekk rek nuyu umma bi yëpp mooy nuyu àdduna yëpp ñaanal àdduna yëpp fu ñu mënti nekk rek jàmm ndax jàmm moom am moom ci la lépp xaj ñi nga xamante ne amuñu ko askan yi ko amul peuple yi ko amul yàlla na leen ko yàlla may yàlla na leen ko yàlla may sécurité ma gërëm askanu Sénégal euh, gërëm euh, nuyu dirigeant yu bees yi nga xam ni Sénégal moo leen fal waaye ma ñaanal leen yàlla dooleel leen ba yéene ju ñu am ci réew mi yàlla dimbali leen ci ma nuyu askanu Thiès kaay yëpp nga xam ni yàlla euh, moom def na ma jiite ko di sàkku ñaan ci askanu Thiès yëpp ba yenn yu rëy projet yi nga xamante ne am nañ ko ci dëkk bi yàlla dooleel ñu ba ñu mën a matal projet yooyu. Imaam wax na dëgg ndaxte wax dëgg yàlla eh, élection yi moom mi ngi féete nañ ci suñu gannaaw Macky Sall nekkatu fi fal nañu njiit bu bees mu ngi tudd Bassirou Diomaye Faye eh, fal nañu teg nañu aussi gouvernement bu bees eh, Ousmane Sonko premier ministre moo jiite gouvernement boobu. kon ñun ñëpp waaye bu ñu nee nañu dellum ci liggéey du gouvernement bi rek ak président de la République yaakaar na askan wi yëpp nag Sénégal parce que Sénégal nag moom li fi gën a partagé wu moom bokk na fi wax ak coow. Mhm. waaw moom wax ak coow moom wax dëgg yàlla bu Coupe d'Afrique ñëwee yaakaar ne ni ñun da nga xam football laneen lu ñëw noonu la et je pense que ni nag dëkk moom jëf moo koy tabax. li maam Cheikh doon wax naa ba ba keroog yàlla fay jëf bàyyi wax je pense que ni wax boobu tant que inspiré wuñ ci ñu xam ne liggéey mooy jitu. Eh, dinañu fal nak fal waye fal tabaxul hada da ngay fal nit ngir mu liggéey liggéey bobu nak ñom dañ leen ci wara a ba pare gunge leen ci jappalé leen ci waaw justice mom, li ci sama benn sëriñ daara eh, di le professeur Djibril Samb jangal ma université Cheikh Anta Diop jangal génération limu wax ni nga batu justice indépendante bobu ñi wax mu ni taxawul xam nga lu taxaw juge indépendant ab justice mënta indépendant waaye nag ay juge mën nañoo indépendant nañu dimbali juge yu ñu indépendant je pense que foofu la liggéey bi war a gën a jëm waaw loo ci mën ci dégg gouvernement bi fi nekkoon dafa signé woon ay accord ak euh, syndicat yi nga xam ne ñoo ne ci collectivité territoriale ngir seenu payoor ñu yokk ko euh, ndax xam nga collectivité territoriale moom gëdd bi ñu leen war a jox dëgg ci réew mi joxuñu leen ko mais aussi travailleurs collectivités territoriales gëdd biñ ko wara jox aussi joxuñ ci pourtant ñu ñu ñu ñu ñu mën seen liggéey la ñu am xereñ je donne simplement un petit exemple ngeen jël rek ni ñu xam seen liggéey ñun dañu am benn agent bu tudd mbay Ndiaye ci wàllu éclairage public liggéey bi ñuy def yépp moo koy coordonné bëri na agent yu nekk Sénélec wala ay problème ci électricité su amee moo ëpp xam-xam moo ëpp capacité waa agent Sénélec te bu ñu la wanoon seen i bulletin de salaire doo ko doko doko doo xol je vous dis pourtant ci ay nit lañu am xam-xam motax tax ni li président de la république fi nekkoon ak premier ministre euh jëlone décision pour ñu yok payooru collectivité territoriale boobu yaakaar ñu a jëmmal la ñun maire yi daf ñuy arranger. ndax li tax moy euh, collectivité territoriale tey ji kuko jité fo nga def ay résultats fo nga am ay projet fo nga liggéey mais projet yooyu ñi la ciy jappalé moy ay nit yu am xam-xam yu xam fa dëkk bi toll mais ñooñ foog nga fay leen euh, fa nga wuti ay moyens moo tax yokk payoor googu ñun d'accord nañ ci yaakaar ñu nag euh, président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko ak suñu gouvernement am dinañu dimbali ba xaalis bi ñu war a génne accompagner ko maire yi pour maire yi mën a yokk payoor gi donc loolu dinañ ko def ndax benn maire amul moyen yooyu il faut que état du Sénégal moom mi nga xam ne moo signé accord yoy mu jël alal ju bari jox ko maire yi pour ñu mëna fay fay xaliss bobu pour que grève bi jeex waye bo nee souveraineté alimentaire war nga wax tamit souveraineté vestimentaire ñun ñëpp nous sommes très bien habillés waaw waaw mais dara couture bi rek fi joggé rek mais piis yëpp bitim réew la jóge ana souveraineté kon te solo amul doomu aadama bu am dina dina sax du ko xam mais solo lépp xam kon souveraineté vestimentaire ci la je suis prêt à donner mille emplois dans le textile am nañu usine à Thiès textile tëj depuis quand te lépp fay defar war nañ ko fa li commencé percal euh, corail